dal leen ak jàmm démb Touba doonoon sele bi yoonu askan wi wal Walf Quotidien mbooloo ma foo ko natt weesu na ko lépp ngir fekkee ak barkeelu ci ndigal gi tukkee ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides Walf Quotidien askan wi wuyu si nañ ko ci bëccëku njàngum alxuraan ak xasida Serigne Touba sant yàlla ñu tuubal yàlla ñaan yàlla jégalu yàlla Walf Quotidien Serigne Mountakha basiiru Mbacké tàllal na ay loxoom comme nim ko santaane ñépp defee ko noonu ngir ñaan ci suñu boroom mu teggil ñu mbas mi di coronavirus ñaan ngir jàmm am ci réew mi kawet gu nangu te barke yéen kaabi di la Soleil ne Touba la am ngir ñaan suñu borom mu jëlee fi mbas mi di coronavirus saxal ci réew mi gi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi tukkee ci xalif général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ay kàddoom la ñu fekk ci yéen kaabi di Direct News Serigne Mountakha ne lii di ay xasaayidu Serigne Touba ngeneel la barke la ba tax na jot nañ cee barkelu démb ca Touba daal dinañu ñaan yokkute ci mim réew Serigne Mountakha ay kàddoom ci Direct News daal di fàttali ne Cheikh Ahmadou Bamba bàyyil nañu fi alxuraan bàyyil ñu fi ay xasaayid ngir ñu mun cee jëfandikoo say su ne laas ne ak fu réew mi toll covid 19 ne fi xas nawet gi ne këtt ne jonn ak yeneen ak yeneen yéen a kaabidi laas ne tax sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di xaalif général des mourides daal di soññu askan wi ñaax leen ci kenn ku nekk ak foo mun a féete ak foo mun a nekk nañu delloo lépp suñu boroom ñaan ci suñu boroom ngir mu wàccee jàmm ci réew mi wàccee fi barke ci nawet gi teggil ñu fi ba faw mbas mi di coronavirus laas ne loolee bokk na ci lu sooke Touba yendoo démb njàngum alxuraan ak xasaayidu sëriñ Touba 24 heures des ca Touba ay kàddu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi ne li fi xew tey di coronavirus am ñu tàmbalee tiit ci nawet gi Serigne Mountakha ne am nañu sañ-sañ ñaan suñu borom ngir mu barkeel bile nawet waaye ñaan ci suñu borom ngir mu jëlee fi mbas mi di coronavirus keneen ku te ay kàddu ci biir yéene kaay bi di 24 heures di Ahmadou Mbakiyu Faye mi fi teewal xalif bi fii ci Ndakaaru gis ne askan wi jëfee nañu ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké tax ñu yendoo di ñaan di jàng alxuraan ak xasaayi du Serigne Touba réew mi quotidien am ci taxaw seetlu gis ne xasida yi ngannaay la ci mën a sukkandiku ngir mun a xeex ñetteelu vague covid 19 ci biir yéen a di les échos Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ma ngay ay loxom di ñaan ngir coronavirus bi mun fee jeex ci mim réew ak ci addina gi sëñ Mountakha ne nañ delloo lépp ci suñu boroom te di wettalikoo saay su ne njàngum alxuraan ak du Serigne Touba yéen a di l'observateur xëy dellu siwaat ci accident gu métte métti gi am démb ca yoonu Touba bellu toll ci juróom-ñaari doomi aadama seen bakkan rot ca yéen ne ñoom ñooñu le ñoom ñëpp ña nga dekk ca quartier ginnaaw raay ca Thiès am ca ñeent ñu ca faatu te bokk benn njaboot Fatou Mbaye ay rongoñam feragul ci l'observateur ne ñàkk na ay doomam ci anam yu méttee métti réew mi quotidien feelu ko des ci accident yi ne ci diruk benn semaine lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett faatu nañ ci accident yéene kaa bi di critique ne ci jamono joo xamante ne variant delta bi mu ngi fi gën di law ci mim réew dëkkee di faat ay bakkan saay su ne laaj daal di samp ndax waxtu a jotul ñu quarantaine Dakaru maanaam fexe ba ber Dakar critique di ñu fàttali ne ci diruk ñaari fan lu toll ci juróom fukki doomi aadama faatu nañu ci bile mbas le quotidien bile variant delta ak yan matuwaay lañ ci war a jël ngir xeex bi le coronavirus ay spécialiste àddunañ ci maanaam ñi seen xam-xam ci jëm ci wàllu wi ku demee ni professeur Ibrahima Seck ne jot nañu xoolaat maanaam saytuwaat yenn ci service chirurgicaux yi fexe ba sa monteeg mesure barrières yi professeur Souleymane Boub soññu ci askan wi ci bile delta ñaari professeur yi le la ñu fekk ci biir yéene kaabi du Sud Quotidien di professeur Daouda Ndiaye ay kàddoom ci biir yéene kaabi ne bu fekkee ne askan wi jëluñu seen matuwaay ci teel mun nañoo soobu ci yeneen variant yu wuteeg variant delta yu gën a tar lool professeur Souleymane Boub ne wax ji wax ji mooy fagaru jot na yéene kaabi di vox populi ne ana mun a def ngir mun cee mucc wala fagagal virus bi di covid 19 professeur Dawda Ndiaye àdduna ci ne lay jiitu bokk na ci faw askan wi sàmmonteeg mesure barrières yi ba ko ñaareel fexe ba faratal vaccin yi maanaam ñàkk yi ba ko ñetteel jëfee digle waa kër docteur leneen ci ay kàddoom ci vox populi professeur Dawda Ndiaye daal di dëggal ne vaccin yi amul benn tooke ne ngeneen la ci askan wi te sax jigéen ñu wérul ñi mun nañoo ñàkku yéene kaabi di la mandat xëy faram-fàcce ay kàddu professeur Dawda Ndiaye mi xam le ne variant yi lée warta raglu warta tiital fekkee ne askan wi jël nañu seen matuwaayu mat sëkk te jëfee digle waa kër su ko defee ci saasi mun nañoo nasaxal bile variant delta yéen di turbine ne bile variant delta tàmbale naa nasaxal géew u Sénégal ay parti politique yu bari ñemeetu ñu yëngu leader ya ca ne maanaam kàngam ya ca ne kenn ku ne ci ñoom soppi nga doxalin dematoo ci askan wi amalatoo ndajeb mbooloo ñu bari ña ngay ji ña fagaru ndax bañ a jaay seen bakkan turbine ñu bari nag gësëm élection locale yi ñuy jëm ak leneen nu nar a xajamal élection yi bokk na ci coowal certificat de résidence yéen a cabinet le témoin ne yi la élection locale coow am na ca xaat te dara xewagul yéen a cabinet jëm ci fichier électoral bi ak primo votant yi ba ci mbirum certificat de résidence ñu bari tàmbale nañ cee ñaxtu yéen a cabinet l'info ne ci jamono joojule waa PDS fagaru nañu ba noppi ngir song maanaam xañ ndam njiitu réew mi Macky Sall ci élection locale yi ñuy jëm bi ngir ñu élection locale yi yéenekaay bi di li Quotidien ne deltuwul ginnaaw moom Mame Mbaye Niang pare na ngir soobu ci dagaan baatu askan wi ngir mun a falu maire de Dakar Mame Mbaye Niang ne atangi ni mu déclaré candidature am te amul lenn mun a tax mu deltu ginnaaw yéenekaay bi di ne lu jëm ci ay sàcc ya jot a teg fale ca Saly yéenekaay bi ka ca gën a ràññeeku di Cheikh Ibra ndekete yoo Baye Modou Fall Boy Djiné jot na ko woo téléphone ca kaso gamu ne ne la ba ñooñu ñu teg loxo ci mbirum sàcc foofe ca Saly ndekete ñu xamante fa lañ doon nase seeni pexe fa la Boy ricce ñetti yoon yéene kaabi di stade ne golub Sénégal di Edouard Mendy defati na jaloore ca Chelsea gamu ne joxaat na leen ndam Chelsea mi gagné démb super coupe gannaaw bu mu daanee Villarreal kaabi di stade ne Edouard Mendy moomule jël na fi yàggul Ligue des champions tey équipe di Chelsea gàdduwaat na super coupe d'Europe yéene kaabi ne yile jéego doon lu mun a xàllal yoon kii di Edouard Mendy jëm ci ballon d'or yéene kaabi di suñu lamb ne bu doonoon football Diop di coach bu fas Ndakaaru àdduna ci Kati Diop ci suñu làmb ne Balla Gaye moo gën a technique Double Less ak Sa Thiès Kati Diop ne moom Balla Gaye mun bëreem kenn du ko naatable